bay ee ñuy ko am jàng di ree yuusoo ñuy ree ah ñëpp di ree Le père d'Ayao a trois enfants Ayao et Yogo comment s'appelle le troisième fils Quel est le Ketchup. Quel est le troisième fils? Yao Diogo. Yao Diogo. Yao Diack. Donne-moi un animal qui n'a pas d'os. La banane. Donne-moi le nom d'un métal transparent. Grillage. Amédée dama nga ma fii on dit le fourneau ou bien la fourneau. mais madame ça dépend si koy boyal bu dee góor fourneau la ñuy bu dee jigéen nag la léegi bu dee ñun ñëpp nag. mu fourneau. <laughs>